Sira dégg naa sa mariage tañ ko annulé. ayda paa bu boobu mooy sa jëkkër te mooy dooni sama jëkkër man. li yomb ngay balbalu di jaay réew maa la gën a réew foofu. gis nga nit boo ko liggéeyee mu bëgg la di la topp amatoo nit dof nga yor. dama ne di nga fase Aïda Diagne wala doo ko fase. lii te du jeex. jaayul dafay maye te damay xool ki ma bëgg ma may ko ko. ok lii mooy sama biir day métti. dénkoo ma de néew ma la sama biir day métti dama ne la sama xol mooy métti.